xam nga toujours xale yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi sikkal xale yi mais nee naa rek base bi ba tey fan la xale boobu nekk di di di traîner di traîner di traîner ba am doom kuy papa ji xamuñu ñi ngi laam-laamee tey naan nijaayam mën a jur mais mënuñoo yor moo ko jur ñi ngi naan nijaayam la mhm. dem ba yaay ji rejeté ko yaay ji dee na yaay ji dee na mu dese baayam muy kilifa baay bi xalaatul sax téye ko mu demee di seeti baay bi gardien yi ni ko doo dugg ndax la ji rejeté na ko kooku bu baaxee yàlla la neex hmm, mu dema dema dem ba doomam jooju mu juróon ba mu ko ba mu juree doom ji na ñoo xam ne seen kër bàyyi la ñuy dem mais gardien bi da leen bàyyi. du leen bàyyi li ma lay wax ni dama ko gis ñaata laa ci enregistré. jeex na mën naa leen limal ñu bari te ay doomi ah, kilifa la ñuy doon kilifa goo xam ne wallaahi kooku mën naa jàpp loxoom doom yi dara waaye bu doom bi demee ca bureau ni ko reconnaître ma mu ni ko mënuma la reconnaître wala naa la reconnaître bis temps naa ñëw ba tey ba tey ba sànq xale bi mën naa jàpp ci loxo ko indil la ko maanaam mën naa jàpp ci loxo wallaahi wax na ma tur baay bi wax ma santu baay bi kilifa eh. kii ma lay wax nii da koy dundal da koy def lépp waaye nangu ko reconnaître kii nag dundalul am na xale bu jigéen moo ngi seetaan Mm-hmm. kilifaa ko jur moo ngi topp ci baay ba léegi. dëgg la moo ngi ñuy seetaan. kii de mën naa jàpp ci loxoom ak te dem ba bureau baay bi de baay bi taf def yëpp mais bu dara desul lu récolté daal mu koy jox ay làkk daal. kee de doom jëmu jur keneen beneen meere ko for ku dul mbokkam jël liir bi ci moom ndax bañ liir bi de mu téye ko di ko yar mel ni xale bu jigéen bi amul ay mbokk ci dëkk bi. ay mu yar ko yar ko ba xale bi fi mu nekk nii mu ngi liggéey doom ji màgg na bi mu màggee wër na yaayam ba gis ko dëkk ak moom ba mu dëkkee ak moom bokkuñu jikko yaay ji tasaaroo woon na def na lu nekk dem na fu nekk dëkk région bu ne dem na fa taxawaalu ku leen la kii baayam ak ndayam dañoo am yaayam benn boobu la am muy moom. am na xale bu góor bu ma nettali. laalu ci dërëm laalewu ci taqewu ci lekku ci. dëkk bi jigéen ñi ñoo war a jël seen ay doom yar leen def ci ñoom ay valeur fi mu mm. nekk doom ji génne na yaay ji génne na ko yaay ji fi mu nekk kenn xamul fan la dëkk. mi ngi taxawaalooti kooku doom jéeg yaay yemuñu jikko yemuñu jikko bari na yemuñu jikko di nga ñaari yar fu ñu dajee rek coow léegi doom jooju nekk cëggal guyam génne na fañ ko doon yare ut na appartement boppam lan lay dund lay dund yaay dafa am importance mooy li ma doon wax rek gis nga benn benn chaîne la boo xam ne ah? ku ci juddu rek da ngay teg benn maay wallaay dafa war a yem dafa war a arrêté dafa war a arrêté dafa war a arrêté ah? li xale bu jigéen wax ne parfois nga gis waajur yu ameel seeni doomi àq mhm. wallahi day am yu mag te te ëllëg eh, sàmm ku nekk dinañ la laaj na nga sàmmee sa njaboot sa njaboot waaw dafa am responsabilité boo xam ne da nga koy jël ba mu mag mhm. waaye gis nga li sëñ Yusufa Seck wax mi xale bi dafa jëre yërëm mhm. li ma koy digal mooy li ko mantu digal nit di nee na dix-huit ans la am nit xale dina am dix-huit ans yor xelu mag waaw ndax coono yi mu dund damay wax souvent nandite du ay yére yooyu sol nandite du euh, euh, euh, yor oto bu rafet am fii far bu baax wala gel bu baax dugg ci boîte yi mayeen loolu du nandite nante mooy nga am problème régleel ko sa bopp ba problème bi du ñuy te yëgul police jaarul prison kenn yëgu ko dama koy jox benn exemple mhm. mu xool ci kooku koo xamante ni bis bi mu juddoo bis bi mu juddoo laa wax génn maternité yaayam moo ko sànni sànni bi mooy ñëw na ci njaga njaga bokk na ak ki ko ëmbal mu ñëw ci njaga wala ci mantu ni téyel ma xale bi ma fay taxi bi nga téye xale bi mu daw bis bi mu juddoo laa la wax xam nga loolu néeg na nga def ko ñaari doom même même scénario mu nekk film bu doy waar xale boobu tey jii xale bi mu mujjee sànni nga xamante ni ñi ko ngénte seen dépense la ñu jël ngénteeku ko xale boobu tey jii kilifa la ci réew mi may wax ak yow Ah, xale boobu tey boo duggee biir këram bu ñu ne la toogal doo toog laaw la cat catuwuma ko xale boobu nan la def ba génn ci xale boobu tey moo dem ba wëri ndayam c'était pas évident mu xam fu yaayam nekk moo dem ba wër yaayam ba gis yaayam indi ko dugal ko ci biir këram barakallah boobu ban yaay la yaay boobu ban conseil lay jox doomam déedéet ban emprise la am ci doomam mais man a yaay yooyu yëpp a ma gënal ray bi de del naan ci naan gi soo xamee ni mënoo yor amoo moyen yor amoo moyen dara wutal mhm. xel ko foo xam ne dina fa am avenir moo tax ma ne ko moom na am jom foo xam ne defar nañ ko avenir am man waaye nag lépp gën ray bi na am jom ray bi daal na am jom kuy yelwaan sax boo yelwaanee ba am junni boo yelwaanee ba am junni dama laa ñaan nga dem syndicat wala nga dem caaroy teg sa table laaj table waaw. bu déwénee bu déwénee sa table dina yokk. bu bu at ñëwee di am di nga am cantine su ndaw soo xamante ni dina la mën a téye. yëpp question d'ambition la. parce que léeg-léeg gis ñoo xam ne yaay ñuy taxaw di talal loxo dara jotu leen. mën nañu liggéey. sikki ma lakkandoo ah, kenn mënatu la dimbali kenn. saraxukat amul juuti amul impôt amul facture amul dara. Mhm. te bu la neexee bokk sa bëccëg junni. bokk sa bëccëg junni. waaye nag jom mooy jom mooy tàllal moom. waaw dafa war a jeex ci mim réew. Ah. li may wax mantu mooy xale bi na am jom bu la yoog yaayam tey mën na koo yey waaye yàlla bu doom ji la yoog moom mu yey doom ja yey ko ëllëg euh, na fas na takk sërëm mm-hmm. liggéeyi da dem wuti liggéey mooy dëgg wala dafa toll ci wuti ji mm-hmm. liggéey am na sax nag dafa am problème boo xam ni problème bi dal na ci kawam ba pare mm-hmm. problème damay wax ne xale yi léegi kenn ni jërutul ñu lay woo di la yedd naan la jaaral nii kenn ku nekk fi nga toog environnement bi nga nekkee rek war na laa yedd nga am jom mooy kat sama yaay soon na ci kër gi gis naa muy def ak nangam nangam coono googu maa ko war a tegg sama baay kat gis naa li muy daj ci kër gi ndax ñun coono googu maa ko war a tegg lii ma daj ci àdduna sama doom du ko daj nga dem sa nga dem wuti liggéey demal nga wuti liggéey c'est vrai problème bi mënoo koo fàtte waaye na la problème bi may jom nga war a tekki ci sa àdduna ndax sa doom bu ñëwee moom du yëg problème bi te eh, wallaahi boo ci fasee jom takk sa sër wut ci liggéey loo am bokk ak sa doom bu ëllëgee sa doom dina la yor. jaga kii ku am jom la xam nga lu tax ma ni la ku am jom la woo bi mu la woo nga toog mu jaral ko te gis la yombul nag defaal. wallaay wallaay wallaay mu jaral ko mu def loolu yépp ba gis la toog wax la problème am ah. wane ni daf cee bëgg a génn. moo tax ma ni la c'est à moitié à moitié résolu parce que. Mhm. yoon bi mu jël yoon bu yomb la de. wallaay dëgg la. yoon bi mu jël wallaay dëgg la su ko neexee dëkk ci baar yi. dañ koy paye lu mu lekk di ko paye lu mu naan foofu sax euh, Adja Absa dinaa ci wax ni di nga ñiy dégg naan cigarette boo tuxee cigarette day day dindi problème day yokki problème day yokk problème ndax xaalis la gis nga buñu nee la boo boo amee pro boo amee problème boo naanee sàngara fekk fàtte problème bi dalay yokki problème loolu du dëgg xale yi su souvent yooyu dañ koy dégg ba bu ñu amee problème di laal flaque ma dolli la wala levier ma dolli day yokkal problème levier jooni waaxu ma dolli la ma dolli la <laughs> waaw benn paquetu cigarette bu nekk. équivalent wu benn brique la. walaay dëgg la. nga tox ko ay at nga xool ni tox nga sa kër. sa kër walaay walaay tox nga sa kër. te sàngara gën a cher cigarette. donc lieu de débauche la boo xamante ni ña fa nekk. Mhm. xëy na gënalu leen mais seen xol moo rafet. paye la. Mhm. nga lekk naan fa. moo leen gën a yomb fuuf ndax ñoom seen loxo ngi ci seen xol lu ñu am dañ koy maye. donc moom comme bëgg na génn ci milieu boobu. Mhm. ku am jom la. man xam naa ne ku am jom la rek mooy waajur yi mantu nañu rus seen njaboot gi. Mm-hmm. am na koo xam ne boo ko xañee sa bopp ci sa sa dund. boo deewee falaa bu dal la nga ko xañoon mu am ko. Mm-hmm. ndax doom la day doon. Mm-hmm. am na ñoo xam ne fase nañu seen yaay. wax xale yi woo xale yi ni leen maak seen yaay tas nañu. kenn ku nekk na xool fa nga jëm. may wax xam naa ko. dëgg la. doom ji ànd ak yaay ji dem fekk baay baa yor wërsëg bi ba tey baay ba du defal kooku te baay bi moo ngi fekk fekk eh, maanaam di dagg buumu gàcce yi ci ndakaaru waaye xam nga nag ba ñu toogee ak doom yi ni kenn ku nekk du ñu xëccoo waaye doom yi choisir leen kenn ku nekk fa ngeen dem fa ngay dem moom mu dem choisir yaayam ca la ko ca la dagg léppam ba tey ji nii may wax ak yow xam nga loolu ko fen moo tax waajur yi am nañu responsabilité bu rëy ci doom yi te doom am na foo xam ne mënu faa toog di xas ndeyam mm-hmm. ndey bu ko doom deful lu baax mën na koo boole ak ay nit mhm. ñu xas ko waaye am na ko xam ne mën ta xas ndeyam ndax ku ko fekk muy xas ndeyam wala muy yàq deru ndeyam nit ñi xas ko moom la ñuy yedd mantu may nuyu sama sëriñ sëriñ Abdou Karim Seck ca Kenaba sëriñ Abdou Karim maa ngi lay ziar bu baax di nuyu sa doom ji sëriñ Maodo moom muy ziar maa koy ziar moom bu baax a baax di nuyu waa Kenaba yëpp yëpp Fall naa la xale bi nag xëy rek laa maa ngi ñaan xam nga lu tax ma ne la liggéey am na mais mantulaay liggéey am na waaw xam nga lu tax liggéey am na tey man maa ngi wër jànq. waaw yow yaa ngi wër jànq. waaw